fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2022 yemboo ak bés bi nga xamante ne nii ANSD di agence nationale de la statistique de la démographie ñu ngi doon siiwal l'enquête bi nga xam ne amal nañu ko jëmale ko ci biir réew mi ana naka la ñi yeewoo ci réew mi di jëfandikoo seen waxtu li ni mel nag mën a jural kuréel googee ñu mën a xayma ñaata la war a nekk ci koppar ci biir réew mi. jour bu ñu xëy dañuy jël euh, waxtu yëpp ñu daal di seet activités yi nga xamante ni góor ñeeg jigéen ñi moom la ñuy def ci journée bi ñu xool ñaata waxtu lañ consacré chaque activité. loolu moo ñu dajale tey jii fii nii pour ñu xam également euh, travaux domestiques yi ñaata waxtu la ko jigéen ñi consacré ñaata waxtu la ko góor ñi consacré mais également. boo xamee waxtu yi nga xamante ni moom ngay consacré activité yi nga xam moom ngay def journalièrement di nga mën a def euh, li ñuy wax arbitrage seet par exemple soo bëggoon a euh, def benn loisir wala ngaa dem ci daayira yi wala ngaa di gën a euh, toppatoo sa doom ñaata waxtu ci sa liggéey moom ngay renoncer pour pouvoir nga nga def loolu loolu am importance la parce que loolu day tax boo xamee waxtu yi nga xamante ni moom la góor ñeeg jigéen ñi di consacré euh, ci yenn activités yi di nga mën a euh, euh, xayma ñaata lay doon ci xaalis nga xamante ni ci loolu la ñuy renoncer parce que coût d'opportunité la aussi boo demee di def benn loisir wala nga dem ci daayira alors que waroon ngaa mën a liggéey mooy le coût de renoncement ñaata ngay renoncer pour def tel ou telle autre activité loolu moo nu dajale tey jii fii nii. gannaaw bu nu fexee ci seeni lànket ba xam ana naka la ñuy jëfandikoo waxtu yi. bile kuréel di ANSD da cee fas yéene sukkandiku ngir indi ci ay pexe. bu ñu xamee loolu dinañ xam exactement pour ñu autonomiser femmes yi pour leur permettre ñu per participer de plus en plus ci euh, économie sénégalaise euh, yan activité lañ gën a war a mën a valoriser pour que ces femmes là puissent euh, mieux s'intégrer dans ces activités. gannaaw bi li liggéey am na si ñaari fànn yoo xam ne xam ko dana am solo lool muy xeetu yëngu-yëngu yi nga xam ne dinañu ko amal ci biir réew mi ba xam naka lay jure am koom. ci noonee nag dañuy xayma góor ñi ak jigéen ñi ana seeni yëngu-yëngu lan la mën a jural ak naka la ñu koy defee. ci activité dañoo sendee activités yi nga xamante ni moom la ñu xayma nga xamante ni eh, ñaata ñaata heure lañ koy consacré par jour. am na activité yoo xam si activité yoo xamante dañ ci gañe xaalis am activité yooyu doo ci gañe xaalis boo xoolee en moyenne eh, góor ñi dinañ def juróomi waxtu ak lu tegal ci activité yoo xam dañ ci gañe xaalis. alors que jigéen ñi dañu ci def ñetti waxtoog lu tegal ci activités yoo xamante ne dinañ ci gagné xaalis mais boo xoolee au delà de ça activités yi nga xamante ne duñ ci gagné dara jigéen ñi ñoo ëpp lu ñu koy consacré que góor ñi góor ñi ka boo xoolee lu bari ay quelques waxtu la lu mat matul sax waxtu ñaar fukki minutes ak juróom-benn la ñuy consacré à ces activités la pour montrer que les femmes euh, au delà li ñuy liggéey si ci bureau yi seen kër yi également ñoom ñoo fa nekk di liggéey. soo xoolee eh, ki nga xamante ni ku jigéen ki moom eh, kiy liggéey su ñëwee dina def à peu lu mat ñaari waxtu ci travail domestique alors ki nga xamante ni liggéeyul quasiment li muy def lépp ci travail domestique la koy consacré plus de juróomi waxtu dina ko considéré dina ko consacré ci travail domestique notamment pour mu toppatoo xale yi toppatoo mag ñi ci kër gi togg ak yooyu yëpp da koy def ci kër gi yooyu yëpp moom lañ euh, euh, euh, estimé tey jii pour xool différence bi entre góor ñi ak ak jigéen ñi. naka noonee am ay xeetu liggéey yoo xam ne bu ko jigéen di def mën na ko jural am koom li ni mel nag waral professeur Alé Diop. nekk directeur général bu ANSD daal di si andi ay leeral ba ku nekk mën ko jariñoo waaw liggéey yi nga xamante ni jigéen ñi mën a euh, am autonomisation ba bari na mooy liggéey yi nga xamante ni day participer à l'entrepreneuriat par exemple loolu day tax ku jigéen kii su fekkee am na liggéey boo nga xamante ni au delà travail domestique bi muy def mën na koo am di ko defal boppam di ci gagné dara loolu liggéey boo nga xamante ni dañ ko war a valoriser la pour mu bañ ci gagné dara gën a mën a autonomiser mu autonomiser boppam. au delà de sa également mooy euh, liggéey yi nga xamante ni liggéey yu productif la parce que aussi euh, contrairement à góor ñi jigéen ñi. li ñu leen di consacré li ñuy consacré ci seen temps pour le travail productif moo gën a néew góor ñi donc seet également liggéey yi nga xamante ni en fonction secteur d' activité yi muy agriculture muy élevage muy leneen loo xam ne dina leen mën a autonomiser yooyu euh, activité activité yu ñu war a développer la parce que day tax jigéen ñi di ci am également xaalis boo xamante ni dina mën a euh, permettre ñu topp ci seen bopp. Euh, bu leen fàtte ni études yi ñu defoon restitution bi semaine bële passé jigéen ñi ñu ngi contribuer dans le PIB du Sénégal a hauteur de vingt quatre pour cent. et donc loolu euh, euh, bu ñu cumuler secteur formel ak secteur informel et loolu am importance la étude bii day ñëw gën a dëgëral loolu parce que dina tax ñu xam waxtu yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di liggéey que ce soit muy travail productif ou non productif ñu ko rémunéré woon intégré ko ci comptes nationaux yi ñaata lay gën a yokk ci PIB bi te loolu day gën a dooleel jigéen ñi ci seen contribution bi nga xamante ni moom lañuy def ci euh, euh, euh, xaalis ou richesse yi ñuy créer ci réew mi. li ni mel nag waraloon seen ndaje tey bii mu nekkoon atelier de partage boo xam ne dañ cee fas yéene woon siiwal l'enquête bi ñu amaloon ANSD ànd ceeg ONU Femmes ak AFD ñu gën ko xam ci agence française de développement lépp nag ngir càmbar réew mi ana naka la koom bi di duggee ana naka la ñuy jëfandikoo waxtu yi ba xam li ni mel ban njeexital la war a am ci réew mi.